bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabil ajmain wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi allahuma salli mbokki julli yi mbokki àdduna bi rawatina jaspora bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaanal uh, sëriñ Mouhamadou Mountakha yàlla suñu borom bi yàggal ko fi te ak mboolem koo xam ne nekk na si réew mi di wooteel diine di euh, nuyu képp koo xam ne membre ADS nga alliance pour le développement du Sénégal euh, di leen ñaanal jàmm di ñaan Sénégal nekk ci jàmm. Euh, man maay président ADS alliance pour le développement di Sénégal ànd defar Sénégal international mu nekk mouvement bi fi naree jëlee bi fi bi fi paree pour jëlee fi li fi ne mooy ñuy yàq alal askan bi ak ñuy sàcc alal askan bi ñuy sàcc di rawale ak ñuy yàq parce que ñaar ñëpp dañuy waxal. ndax kiy sàcc buñ ko bàyyi mais kiy yàq it buñ ko bàyyi parce que tamit bu fekkee kii day sàcc kii di yàq askan bi lan lañ am lan la ñuy dundee li tax suñu baykat yi am problème li tax nit ñemeetuta jël alalam si jënd ko jënd ko lu lu am doole li tax tey nit tey amul sañ-sañu ne si dëkk bi bëgg am kayitu juddu mënoo ko fi am lu tax nit nekkul Séné nekk Sénégal bi bëgg a tukki mënut a nekk gis nga tey Sénégal tey dëkk boo tollool doole rek. lañ la may nga dem fa mais dëkk boo xam ne mu xaw na su doole tuuti nga nekk sénégalais autorisé wuñ la si parce que kon yow prisonnier nga mais tey imagine àdduna bi ku bëgg a dugg Sénégal amul nu la neex ngay duggee kon Sénégal bunt bi am bunt bu amul euh, kër gu amul bunt la ku mu neex dugg parce que ñun dañoo jël tay la ñu jaay ñu li tax Sénégal mënut a jàkk foog demuñu ba. ñii taxaw di di xeexal diini ak di mars euh, loi yi fi nekk foog demuñu ba ba mën na bàyyi nitu tubaab tànn nitu diine kon nay jàpp ñoom ñëpp ay complice lañ tey mënoo taxaw ne dangay ngay mars waaw parce que loi góor jigéen yaa ngi fi loi nangam mi ngi fi loi nangam mi ngi fi te loi yooyu tey yow ñi koy voté yaa leen fal te ñooñ xam nga ni xel ne duñ ay nitu diine. duñ ay nitu nitu nitu bu ñu ko waxee nag nitu diine ak nitu tarixa bokkul ndax si biir tarixa am na ñoo xam ne ñii mën nañoo mën nañoo gëm diine dëgg-dëgg ñii mën nañoo jaay diine ndax alal ñii jaay diine ndax ndax ndax ragal ñii jaay seen ngor ndax amuñoo ngor léegi nag tey bu fekkee ni nitu nitu tubaab bi ñoom ñooy taxaw di woote léegi nag nitu daara taxaw na man taxaw naa ne nitu daara nitu diine nañ ma càmbar sama lépp pour jëlee fi loi yeeg li fi nekk ak yi bon yi fi nekk ñiy sàcc alal réew mi ñiy yàq alal réew mi moom moo ñu tax a jug nitu daara lañ te ñu ngi woo képp koo xam nitu diine nitu daara nga léegi nag damay xaar ba xam dañu ciy bàyyi nitu daara di tànn nitu tubaab léegi nag bis bu ñu fi bàyyee nitu daara tànni nitu tubaab dinañ xam ne ñoom ñiy xeexal nañu xeexal diine ay complice lañ. ndax ñu si bëri tey nga dégg ñuy mars jënd nañ leen si suuf jox leen li tax li leen noppiloo dañuy topp si mbooloo rek mais li ñuy wax gëmuñu ko kon nañ xam ni tey benn mouvement benn parti kese moo mu a taxaw Sénégal taxaw jël programme moom lépp muy diina muy ADS képp koo wax si ñu nga ko copier kon li fi nekk xeex jëlewu ko fi yàq jëlewu ko fi daraja li ko fi jëlee mooy boole sunu doole li borom wax wax waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqu ñu ñëpp ñu ñu jàpp ci benn buumu yàlla bi tabañee tàggali ko bis bu ñu ko defee li fi nekk premier tour ñu tàggoo ga ñu tàggoo gan gi. gis nga Sénégal dafa jot ñu yeewu dañoo nekk ci nelaw goo xam ne nelaw gu xóotu xóot ki fi nekk bu baaxul waaye bu fi tegaat ku mel ni moom. xam dama la ne yàqkat ak sàcckat ñaar ñaar mais boo fi jëlee yà kat teg fi yàqkat tamit li ngay liggéey du jag man bootuwuma si benn parti bu fi nekk te fas yéenewuma ko man état mënuma fay xam kan mooy boot ci ginnaaw état mooy nit ku amul diine wax naa la ko sànq képp koo gis muy daw di jaay ngorom parce que li sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma di wax rek koo dégg ñu ne jaay na ngorom rek mus sa am ngor état bi ma dalee yëngu ci àdduna ba léegi man boo xoolee président bi sax benn yoon laa ko mës a séen séen laa am si moom seen seen nii yu si def télé maag ñëpp a si yam parce que aw ma soxlay soxlay président parce que parce que président bi mënu ma defal dara man maay sant yàlla ñaata at ma téye sama mouvement aw ma benn partenaire Serigne Touba mooy sama partenaire. soo amee sëriñ Touba looy dooy ay nit man sëriñ Touba laa am jullit laa nekk taalibi sëriñ Touba am sëriñ Touba lu xeetoog état jegewuma ko te duma ma jege état benn opposition moo am Sénégal muy man parce que xam li waral loolu mooy li fi nekk lépp benn système la benn système nañ ànd def def def coalition xeex ku fi nekk buñ ñu paree ñu séddoo Sénégal ku nekk séddoo xeexaat kerewaat ci biir mbooloo moom ay yeneen parti ànd ak daan laat kooku ba kañ. tey ñoom seen ànd tey ànd boo gis fii Sénégal dañ naan tey suma faloo lan lay am séddoo séddoo nañu réew mi te falooguñu parce que Sénégal moo pare si naxaate yi ak tappale yi ak président yi nga xam ne dañuy jël di ñu tayle ñun suñu président bi dañoo tayle président mun ta tay la askanu Sénégal nga naan da ngay jege président loolu yow boo ko defee buñ boo nee jullit nga baa am nga ngëm-ngëm yow boo ko waxee sa bopp ngay tax fii amul daal da daal daal li fi ñi dem ñi dem si président ak la ko président ni ñëpp xam nañ leen. média yaa ngi fi journal yaa ngi fi fuite yaa ngi fi fuite yaa ngi fi. waa man opposition bi yëpp dama leen ñaanal jàmm parce que bari na du du Sonko rek bari na ay opposition ñoo xam ne tamit. ay nitu daar lañ ay ay ay nit ñu gëm seen bopp lañ am na ñoo xam tamit am nañ gëm-gëm ci solution Sénégal muy moom ak ñoom ñëpp dañ leen di ñaanal jàmm ñaanal leen ndëgër laay ndax xëy na am nañ yéene ci Sénégal am nañ yéene ci Sénégal waaye man li ma mën a wax mooy man sama bopp rek laa xam parce que man lenn kese kese kese moo ma ñor muy askanu Sénégal. moo tax tey bu ma nit di laaj ci leneen sax daanaka damay sonal man nee ma askanu Sénégal parce que tey loolu moo tax ñu préparer ñun suñuy propre moyen bopp yoo xam ne dërëmu mbindeef demu si di ko jël di ko tasaare si askan bi di leen defal ay formation ñuy fex ñu am métier di créer di leen faj askan bi ndax tey ku si feebar dem ci dem ci hôpital yi nga xam ne hôpital état wax ma hôpital Sénégal hôpital état laay wax Sénégal amul hôpital ndax ñoom dañoo tabaxal hôpital te duñ ci fajoo kon lañ ñuy jox baaxul nit nag bu fekkee ne da lay toggal añ ba pare dem di jëndi restaurant kon lam lay toggal baaxul kon Sénégal amagul hôpital bu fekkee ni tamit ñun tamit gis nañ ni àdduna bi yëpp bay moo ko dundal ñun suñu baykat yi tey foo dëkk boo dem si àdduna bi baykat yi ñoo ñu gën a riche mais tey Sénégal baykat yi ñoo ñu gën a pauvre te état bee ñu ko teg. te état boo gis opposition yi ñoom ñooy ñoom ñooy wër xeex nekkaat état bi xeexaat xaajaloo seen biir loolu lañ fi bëgg a jëlee ñun liñ bëgg mooy képp koo xam ne nitu diine nga nitu daara nga te gëm nga ni développement Sénégal dafa dafa dafa dellu cosaanam si li fondé Sénégal muy réew mi ak li fi nekk lépp ngir ñun ñu dundee ñu bay dundee. ngir ñun ñi ku feebar faju sans jafe-jafe ngir ku bëgg a génn réew mi am liberté génn fi ngir nit ñi nga xam ne dañ leen buñ xaar di leen tooñ di leen dugg si kaso yi mu dakk ngir nit ki mu bëgg a am këyit am ko képp koo xam bëgg nga loolu te it ñu wekk sunu nitu diine yi nga xam ne ñu ngi leen di préparé di leen saaga si internet yi di def kere yoo xam ne kenn kenn xamu ko mu ngir yooyu yëpp dakk képp koo xam pare nga ko man boog maa ngi lay tàllal loxo man soxlawu ma nit ko am alal soxlawu ma nit ku am ngëm-ngëm ci Sénégal laa soxla ndax bu dee alal moom kii sama partenaire dina ma ko indil alal sama partenaire dina ma ko indil mo Serigne Touba. waa message bi ñuy joxee mooy euh, Sénégal nañ taxaw seetlu ñu xam ni euh, buñ nee diina islaam dafa yaatu trop te bokk na ci li yàlla di laaj nit ëllëg yomal xiyaam mooy vote kan nga voteel dama sóotu isra wala taxfu maa laysa laka bi ilmun inna sama wal basar wal fuwaadu kullu ulaayka kaan anu yàlla nee na bu leen di topp loo xam ne amoo leen si xam-xam moo xam ngeen dégg rek diw dégg na diw mi ngi def bruit mi ngi def mi ngi def buzz mi def nangam wal basaru baa nga gis ni kii kat eh, mbooloo mi dar nañ ko mbal fuwaadu baa kii daal neex na ma rek yàlla neen loolu lépp dinañ leen ko laaj ëllëg yomal xiyaam képp koo xam ne da jël sa carte bi nga footeel ko nit ngir sa bakkan balaa ngaa jéggi siraat di nga ko layoog yàlla parce que réew du caaxaan réew nit ñi tànn ñu ko yàlla moo ko tànn yàlla moo tànn réew def leen ay waasu ak xeet giir ba pay ne ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla moo tax amul di problème bu ëpp doole nit ki ragal yàlla képp koo xam ne yaa ànd ak nit nga ne jullit nga ba pare nga jéggi fi ni xawal yi nga xam ne critères yi nga xam ne dañ ne képp kum nees yow sa jullit matul yow nga xam loolu ba pare topp kooku ëllëg bala ngaa jéggi siraat yàlla dina la ko laaj te loolu bu ko yàlla toppee nit nit ki mën a see perte kon nit lépp lu muy topp na topp am xam-xam mu xam kan moo koy indil njariñ xam kan koo xam ne moom damay bàyyi bu ngeen ma joxee ma doog leen a dimbali kooku tey boo ko joxee du la dimbali. kii de liggéey réew day liggéey réew ci par rapport moyen boppam bàyyi ba doog ba toog si nguur gi doog a liggéey képp koo dégg mu koy wax tappale la beneen biit dénk leen ma li olof wax gasum ñam bi bi sa yooru goj amee reen nga taxulaa laa jug jox leen ma réew mi mu jaral yet yi jug yoxante yi ñaaw yi jug ku la jox réew mi nga sànk waa réew mi kon yow dafa mel ni kon am na beneen intérêt bu lalu si nga jiital nit ñi kaay ma jiite leen déedéet toogal nga wax ak nit ñi nit ñi boo leen doyee dinañ la jiite kon ñun li ñuy def mooy képp koo xam ne sénégalais nga ne si réew mi am jafe-jafe liggéey na nga annoncé si biir waa ADS bépp jigéen bu ne si réew mi nga xam ne amoo benn formation nga xam ne état bedd na la. li fi nekk lépp bedd na la ñëw nga seet si waa ARS dinañ la fekk ba fa nga nekk defal lay formation financé la si lañ la formé nga am métier mën a jariñ sa bopp ba doo dépendre kenn képp kuy baykat tamit ne si réew mi ne si gox boo xam ne noor kasa nawet kasa nga yaakaar nga xam ne noor da ngay toog tëdd di nelaw dekk wool waa ADS ñu fexe ba génnee la ndox sa biir tool boo xam ne accompagner la ba nga mën a bay di dundal sa bopp di dundal say njaboot. képp koo xam nekk na si réew mii tamit am jafe-jafe faju ne si réew mi wool waa ADS ñun xaaruñu ba jël réew mi di liggéey ñun dañoo nekk di liggéey tey at ñu ngi koy def te xaaruñu si kenn dégluñu si kenn parce que ñun suñu askan lañ soxla sunu askan am liberté moo ñu gën lépp lu am te lépp lu ma waaye di defal ci àdduna te defaloo ma ko Sénégal bëgguma lépp lu ma waaye di defal ci àdduna te defaloo ma ko biir Sénégal bëgguma parce que man Sénégal moo ñor. xëccoo xiiroo ŋaayoo ñoruma li ma ñor mooy askan bi am liberté am jàmm su ko defee Sénégal jëm kanam